ginnaaw la topp moo di kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk ak kilifa aada yi dañ leen di ñaanal rek guddi fan ak uh, samp leen fi nañu jël ki ne ci liñ bi te dellu si waat allo Cissé oui junior eh ñu ngi lay ziar ba lépp sant bu wér waaye patriote bu mag bi kenn du waaye kenn du yow ci mim réew de dégg naa toj nga bawal ak Mbàkke ak Tuuba Mbàkke ñu ngi lay félicité. ndax jàpp nga ci sama campagne. <laughs> macha allah. kenn du ci mim réew waaye jaloora ja nga def Mbàkke. Euh, mm-hmm. bàyyi yëg nga ne dañ koo def à la une. Ah, waaw Mbàkke dañ ko maîtriser xam ko xam Mbàkke moom suñ koo xam ne maîtriser mm-hmm. lu bari luy xew rek euh, mën nañ cee am ndam lu yàgg avant mu yàgg. Mm-hmm. loolu mooy dëgg. dëgg la euh, Junior si solo bëggoon nañu xam tamit sa relation ak euh, kii di seex Thioro Mbacké ndax ku ne gis na ne yow Cheikh Thioro nga doon jàppale ci élection yi euh, relation bi ngeen am yéen ñaar ak lan lañ mën a xaar ci yéen ñaar ndax li ñuy wax rek lu benn man rek kenn man rek ñaar a ko dàq. waaw sëñ Cheikh relation bu yàgg la parce que ñoo bokk koñu bu ñu juddoo yaroo fa. Mhm. waaye bi loolu lépp jàllee su ñëwoon mel ne politiciens yi fi jaaroon. Mhm. duñ ko jàppale. dëgg la. yàlla def na euh, deux mille vingt deux ci candidat yi ñu proposé woon ci la bokk ñu jàppale ko xeex ba ci veille bi Antoine yóbbu ñu garde à vue quatre jours mhm. yàlla def ñu gagné élection yi mhm. euh, su ñëwee au pouvoir après ñoom ñu gagné euh, réew mi di gouverner mhm. ñu gis ne salaire bi muy am li muy daw di fortaatu ji mi ngi koy delloosi ci askanu Touba te askanu Touba ñor ñu gis li muy daj ci hôpitaux yi li muy daj ci malade yi li muy daj ci leneen ak leneen ak leneen so c'est obligatoire ñu jàppale ko saa condition dëgg la lañ ko jàppale euh, te tant que mi ngi xëy ci bëgg-bëgg askan dañuy continuer di ko jàppale mm-hmm. suñu relation loolu la d'accord euh, passé wut passé wut loolu waaye mu percé comme ni ko journal bi le point bindee mhm. mu def jaloore lu musta am ci histoire politique mhm. ay baayam ay nijaayam ay magam la boole duma duma yu méttee méttee métt mhm. ñooñu it buñ ñu ko proposé comme tête de benn xalaat lañ amoon mooy dem yàq jaram moom ak suñu tête de liste Ousmane Sonko foofu ma ci profité di sant population Touba mais population département Mbacké parce que ñoom teel nañoo identifier ay fenkat xam ne ñii amaluñ njariñ askan bi ñii amaluñ njariñ Touba waaw identifier nañ leen ñu bokk ci ñu dàq fen ci adduna ñi yor seeni fen sénégalais yi waa Touba waa Mbacké ne leen dégluwuñ seeni fen daa di def li ñu def bërki bu ci dimanche génn vote ji massivement sans ay moyens loolu jaloore la ju Serigne Cheikh Thioro def joo xamante ne nii lu ñu mën a bind la lu ñu mën a tiitile la lu ñu mën a yaatal fésal la parce que problème boobu laa amoon mm-hmm. xam naa ne ñi mu ñi ñu jàkkaar lool dañoo jalousie mm-hmm. Cheikh coro tête de liste leen. waaw Cheikh Thioro ndaw la ndaw ñi bàyyi nañ ko xel neexu leen. Mhm. ñu teel a jóg takkaay ne dañ koy fenali dañ koy sosali dañuy yàq ji deram. Mhm. looloo taxoon ma départ ne damay dem pré campagne. Mhm. damay dem campagne. te gëm nañ ne incha allahu rabbi le 17 novembre yàlla dinañu may dinañu may majorité. dinañu may it. victoire boo xamante ne nii kenn du ko laam-laamee. la effectivement noonu la ne ci département Mbacké. ñuy sant waa Mbacké di sant waa Touba. Mhm. Euh, ci mature bi ñu am. Mm. ba mën a taxaw xam ne kat Sénégal ñi nga xamante ne nii jox nga leen réew mi pour ñu doxal il fallait que nga jox leen majorité. Mm. ñu takk majorité bi ñu takk. Mhm. ni mu toll jox leen ko pour ñu war doxal ci juróomi at yii di ñëw. Mhm. yàlla bu yaakaar tas. amiin li Sénégalais di xaar ci nguur gii fi nekk te Bassirou président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jiite ko ak sa premier ministre. Mhm. suñ borom defal leen ndam lu kawee seen njort. amiin loolu la ñaan. alors euh, te yàlla bu yaakaar tas. amin alors euh, Junior bi nga gisee yow bi nga xam ne yaakaar naa yaa ngi woon ci bureau de vote yi sax su ma juumut euh, bi nga gisee maire yi Touba gis nañu maire yi gën a màgget di ñoo doon jug di vote ji ana lan nga yëg ci moment boobu noonu. waaw vidéo boobu ñu bari ci man lañu ko jële parce que mm-hmm. fi ma nekkoon di mandataire Daaru Marnaan sama rôle. Mm-hmm. mooy bàyyiwaale xel bureau de vote yi nga xamante ne ni am nay problème. Mm-hmm. waaye ma focus woon ci mag ñi nga xamante ne ni xamuñu fu bureau nekk. mënuñoo lire fan la bureau nekk ci ñooñu laa concentré woon maire boobu nga xam ne vidéo mi ngi virable mhm. ëppal na quatre-vingts ans dëgg la mais mu jóg di ñëw ci centre de vote bi il fallait que ma accompagner ko nu mu gën a gaawee ci coo ci noppal ko pour trouver ko bureau de vote am mhm. moom it mu xam ne mag la waaye am na lu ko war mhm. muy en tant que citoyen ñëw voté si Euh, loolu bëri na Touba am na mag ñoo xamante ne nii seeni doom yu nekk ci diaspora bi ñoo leen ne yónnee paas même mm-hmm. ne leen xëy leen dem vote ji maire yooyu li ma si gis ëpp nañ euh, mën na presque une centaine ci euh, arrondissement daar Daaru Marnaan loolu lu ma marqué la ci jour scrutin yi mm-hmm. ay maire yu màggat ay meer yoo xam ne ëppoon nañ quatre-vingts ans waaye li ñuy wax mooy suñuy doom kat yebal nañ ñu nee nañ nañ dem vote ji liste bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko nekk di wër nga xam ne kon lépp léegi mujj na daje. ndaw ñi ak mag ñi daal jox nañ bopp ñi nga xamante ni nii ñoom yàlla teg ci bopp réew mi. yàlla bu yaakaar tas loolu laay wax. amiin li ñuy xaar ci ñoom yàlla na ko suñu borom mottali. réew mi ci année yii passé jafe-jafe yi nekkoon métti bi nekkoon yàlla na fi suñu borom jaarale saafara jafe-jafe yi Sénégalais yi. waaw loolu mooy li nga xamante ni nii mooy lu wér. ay mag ñoo bu ñu nee ndaw ñi rek ñoo génn voté ji waaye ñu bari ci mag ñi. Mhm. Euh, jóg nañ génn nañ dem nañ voté ji massivement. d'accord loolu nag. Mhm. képp ku gëm yàlla te nangu dogalub yàlla. Mhm. war ngaa xam ne ñii fi nekk kat fi mu toll nii di leen fenal ak di wër di yàq seen der yàq say wax la. ndax kenn du la déglu. ndaw ñi ñoom lañ àndal. mag ñi ñoom lañu àndal ci mm-hmm. juróomi at yi mm-hmm. kon nag wax dëgg fa yàlla li ci des mooy ñu rafetal te bàyyi leen ñu doxal mm-hmm. te xam ne su réew mi changé ñëpp ñoo ci bokk gis seen bopp ñëpp ñoo ci bokk jariñoo d'accord voilà léegi yow assemblée nationale kan nga fa bëgg a teg ñii naan Sonko moo fay nekk ñii naan Ayib Daffé non man du ma ne kii moo fay nekk wala kee moo fay nekk. moom boo doon tànn quoi. ay nit soo leen soo leen soo leen doyloo yi leen. Hmm. yaakaar leen man li ma gëm mooy. Hmm. bu ñu am problème fan la Ousmane di dem. Hmm. président ak Ousmane premier ministre xam nañ fan la mën a nekk pour euh, avancer liggéey bi te mu nekk foofu liggéey bi avancer rek moo am solo. ndax day dem assemblée. pour baral liggéey bi wala day reste primature pour baral liggéey bi loolu ñoom ñaar xam naa ne duñ ci am réeroo te fuñ ci dem pour liggéey bi bar mm-hmm. kooku sénégalais yi dinañ ci ànd mu nekk assemblée ak mu nekk primature gëm naa ne mooy yem ci sénégalais yi rôlu Ousmane yaakaar ji sénégalais yi am ci Ousmane mm-hmm. yàlla bu mu tas moo am solo mais fi muy nekk moom <laughs> man pour man awma ci problème d'accord voilà fi ma bëgg a tëj ak yow nag euh, moo di junior bëgguma nga dem mu ko talaaj ñu la muy suñu waajuru góor bi dem gis nañ ko si Moustapha si Cissalo mu génn na moom bàyyi na politique léegi gars yi di xaar ne relève bi nga xam ne euh, yow yaa di doomam jël nga ko ndax ñi ngi xaar dëggu gi nga xam ne mu ngi woon ci moom ñu gis ko ci junior Cissalo non dëggu suñu borom man daf ma kaa moo ñaale mhm. soo gisee may amañ ñu bari problème mhm. du ma jaamu ay xërëm du ma wax lu ma du mm-hmm. ma nekk ci lu ma gëmut loolu xam nañ ko man suñ borom noonu la ma mooñe mm-hmm. bàyyi na politique yàgg na koo wax mm-hmm. te jot na pour mu bàyyi politique ndax li mu war a def lépp ci politique def na ko yàlla na suñ borom guddal aw fanam wéral ay cëram amiin waay man nag <laughs> ñu bëri wax naa leen ko foofu laa nekk ba bi ñuy def investir bi ñuy investir soxlawuma bugguma déposé ci à la candidature pour nekk député. li ma bëgg a doon mooy citoyen bu am liberté. li ma bëgg a doon mooy taalibe Serigne Touba bu dëggu te dëggal. li ma bëgg nekk mooy. liggéeykatu Serigne Touba. képp kuy suma am di jàmm képp ku ma bëgg nang ma ñaanal loolu wér ak gudd fan ak kàttan gu ma mën a liggéeyalal Serigne Touba. amiin waay li ci des nag <laughs> dama koy bàyyi kii waaye teewul dinaa di indi sama xalaat. Mhm. dinaa di indi sama jàppale ñii nga xamante ne nii yàlla dafa def bu yàgg ba léegi ñu bokk ci ndaw ñi nga xamante ni nii gëm nañ seen projet. Mhm. foofu la ñuy continuer di nekk. wax naa ko waxati ko bokkuma Pastef xaaruma dompal tànk Pastef. Mhm. loolu mooy li li may def mooy continuer li ma man ci sama xel ak sama xalaat. pour jàppale leen ci département Mbacké jàppale leen ci biir réew mi ma continuer def ko. ba pare continuer nekk ci suma liggéey. parce que depuis ma bàyyi jàng business laa xam. te ci loolu lay continuer. dëgg la waaye <laughs> wax dëgg fa yàlla. Mhm. parce moom gars yi bëgg nañ ma ñëw bokk fa ubbil nañ ma seeni buntu yàlla def na. Mhm. la ma waxoon Serigne Mountakha rek bi Antoine di jàpp gone yi. Mhm. bi ma jàkkaarloo moom dama ne ko Mbàkke bokkuma ci benn parti. parti Serigne Touba rek laa bokk. macha allah fas yéenewu nekk lu taalibeeb Serigne Touba te ci loolu lay continuer nekk. voilà. macha allah. sëñor ah, ah. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yow maa ngi lay sant di la gërëm bu baax. jërëjëf sama xarit nga sama siste nga muy lu yàgg ngay jàmbaar it. dafa yàgg ci xeex bi man xam naa ko mën naa koo seere. macha allah kenn du yow. yàlla na yàlla def jàmm ak ndam. jërëjëf. merci euh, ñu ngi koy jaajafal bu baax euh, moom Junior Cissé Lo euh, mu di jàmbaar moom itam ci ci ci liggéey bi li mu wax dama koy dëggal ndax waxtaan nañ ci or antenne waaye dana ma carrément man soxlaw ma ndombal tànk moom réew mi rek moo ko ñor moom Junior Cissé Lo jàpp nañ ne tamit tànk yi nga xam ne fa la